salaamaaleykum sunu mbokku téléspectateur Diassigui TV ñu ngi leen di jaajëfal tey ñu ñëw ba benn braque certifié kenn ki nga xamante ni bu ngeen ko gisee suñu écran kenn du ko présenté Sénégal kenn du ko présenté si àdduna muy faj tamit si li nga xamante ni mooy maanaam affaire tradition bi muy Selbé Ndom tey nag ñu ñëw fii ni fas yéene waxtaan ak moom waxtaan bi ñuy def nag maanaam dañ koy laaj ci li nga xamante ne moom mooy actualité ak ci li nga xamante ni tamit da ciy yëngu waaye balaa ñuy gën a dugg ci waxtaan bi damay bàyyi ki nga xamante ne moom mooy maanaam Selbé Ndom mu nuyu mbokku téléspectateur Diassigui TV yëpp ak àdduna bi yëpp Selbé ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci Diassigui TV. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim eh, maa ngi sant yàlla bu baax di ko sant di ko sant julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul Euh, di gën a yeesu sama njébbalit ci cheikhul xadim muy sëriñ Touba xadim rasul ginaaw mooy sama wasila duñu mës a fàtte sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général yi nga xam ne moo fi taxawal cheikhul xadim di ko ziare di ko màggal bu baax di ko jaajëfal ci màggal gii 2020 bi macha allah neex na trop euh, duñu mës a fàtte nag sëñ Moustapha Sy di ko ziar si Malick di ko sargal di feddale suñu kóllëre suñu digganteek moom di ko ñaanal mu gudd fan ak wér di nuyu waa àdduna bi di ziar borom jaasi ji TV di ziar yéen si yéen yéen ñëpp di leen ñaanal seen euh, sit bi suñu borom yóbbu ko ca kaw a kaw a kaw daraje Seydina Muhammad déggoo li ma la wax xam nga façon oto bu ne xew na fi dangay gis ñuy tegaat salimto mi na rax boobu booba temps ay balbon day xewoon voilà am na ay yére yoo xam ne sama ñoom yaay dañ ko doon sol yenn saa ñu génne loo xam ne yàgg na lu amoon la waaye man dama leen dama wax àdduna bi dama sëy ba sëy di neex sëy góor gu ma bëgg ma bëgg ko moo ma jural sama ñaari doom yaas nag Mouhamed doonub jàngalekat instituteur directeur d'école musuma ñaani dépasse déggoo ma de tey li ma tàmm potu paan kaani potu poobar potu laaj butéelu bineegar ravitaillement diwlin ah kooku monsieur Mbaye moo ma doon defar loolu ma doon xale bu ndaw nag rafet ba ba weesu rafet macha allah kon maanaam dem naa ba am doom waaye sëy day neex tey bu subaa mu naqari ginnaaw man taalibi sëriñ Touba ba ma nekkee gune ba tey bëgg sëñ Touba laa def damaa def erreur xamuma woon ne bu ma toogee ñaan lee laa cee jëlee pour nit ñi xam ko na ko nit ñi xam bu baax a baax ba may bëgg sama jëkkër bëgg nekk ci siraatal mustaqim doon xale bëgg sëy pour amal ko njaboot ndax daf maa taxawu boor bu ne damaa dem barabu sëñ Tuubaa sol lu weex tàll ñaan ko mu may ma boroom kër ma dem ba sëy am sama seex seex yi dellu ñaari góor ma am sama doom bu jigéen am sama doom bu góor coow am coow am ma wàcce Mouhamed sama doom dem jàpp ba set ñëw julli ñaar rakka tàllal yàlla sama loxo ak yonent bi ñaan Serigne Touba ndegam moom laa demoon ñaan ko sëy sama diggante moom boobu sama jëkkër mi ngi toog ma ne bu fekkente ne Mbacke Balla maa la ñaanoon yow Cheikhul Khadim ma sëy ak diw tasal ma ko te sama sëy bi bu tasee bu ma amaat jëkkër bu ma amaat doom ba am sama këru bopp li ma sëñ Bamba joxee kër diggante daaw ak ren laay doo ko wax waxu jëkkër kon Mbacke bale la ma ko ñaanoon may na ma ko te dafa am lu ma gis ci man ci sama jëmm ji ndegam bu ma amul borom kër laay wax muy am asimaak bu ma amee borom kër foofu laa waxee na ko nag na nit ñi xamee foofu ndax da nekk siraatal mustaqim comprendre nga foofu laa waxee mais c'est pas parce que ne je cherche xaw ma un mari Selbé wul mari fenn nay leer ndax boobu ba tey nit ñaa ngi ma eh, yow nii oh arrêté qu'il s'arrête problème bi sama vie privée lu tax ma koy dévoiler ci biir devant internet yow gu nekk booba yow juddoogoo di doo yow doo yow gars yi duñ wax ci yow non jamais jamais jamais giri yemal ci kuddu ñu yem la ci ci gayet xam nga ne du ma toog fii di wax na doon sëy sama sama jëkkër rek foo ma jaar sama jëkkër rek maanaam loolu si entre nous ñu ñëw bëggante woon bi ko suñu borom jeexalee dafa jeex xëy na foofu la war na jeexee li tax ñuy wax maanaam selbe daa bëgg jëkkër dama ne leen man maa toogoon ñaan Sëriñ Tuubaa te maanaam waxtu wi ma ñaanoon am na vingt ans boobu xale bu ndaw laa waxtu wi moo jot ndax dama ko noon Mbàkke la bu nekkee nangu sama taalibe may ma diw may ma ko matul deux mois may ma ko bi ma bi ma demee ba mer te ñëppay mer ma ne ko Mbàkke Balla bu nekkee man maa ñëw woon ñaan la diw tasal ma sëy bi te bu ma tasee bu ma amaat doom bu ma amaat jëkkër tant que dund ma ba am sama këru bopp te déjà kër gi nga dugg nii ah lu muy bon bon maa ko moom du dëgg léegi nag kon waxtu waa jot moo tax ma taxawaat ne instant bii nag bëgg naa borom kër waaye man li li li góor di def ci këram lépp man kenn joxuma dépasse de ëpp na 15 ans góor joxuma dépasse maa yore samay doom yore sama bopp yàlla moo may jox kenn joxuma kenn yoruma kenn tegal ma fii saaku ceeb te bu la neexoon léegi loo bëgg ma toggal la ko muy ceebu jën léegi te duma génn sama kër muy muy cu muy muy maafe gerte loo soxla ne dam la koy toggal léegi te duma bouger kon yaay Fall mooy jigéen ju mën góor ak saa lay leer arrêté ci jo tontu tontu naa la ci non loolu loolu loolu loolu man la concerne rek loolu man mii la concerne man mi yëgoon am yëg-yëg ba dem ci ca ca barabam ba ne ko mbàkke bàll boo nangoo sama taalib be may may ma diw gisaat loo xam ne neexuma te mënuma ko muñ ma taxawaat ne mbàkke balla bu nekkee maa la ñaanoon diw dindil ma ko te boo ko dindee bu ma amaat jëkkër bu ma amaat doom xanaa man damay waxe suñ tubaa yéen jeex na non loolu loolu loolu du sa problème kooku moom du sa problème dangaa tuuti ci tànn li may am ku am xaalis ak ku amul xaalis ak loolu moom du ma du ma ci débat ak yow waxal leneen balaa sa interview di yàq da nga cee tuuti. non sama moroom doom nga amoo amoo intérêt di ma laaj loolu dëgg c'est pas parce que ne journaliste nga nga di ma laaj ndax man ku am xaalis laa war a sëyal non non yow sa yoon nekku ci loolu man je fais ce que je veux euh, aussi ce que j'ai envie de faire. lu ma lu ma lu ma lu ma neex laay def kooku du sa problème ndax yow yow sa yu may yow du dëgg ki may sëyal yow doo ko xam waaw ah, kii waxal waxal leneen. da nga ne boo ma amuloon jëkkër dama daan gis muy leer mais su ma amee jëkkër day gën a leer nañ maanaam lajj yi nga daan lajj est ce que nekkul woon ñàkk jëkkër moo tax nga daan lajj loolu c'est hmm. kañ laa commencé seet kañ laa divorce xam nga ko sama doom sama doom bi ma doon nàmpal moo la sut xam na kañ laa tas boobu sama doom bi mi ngi am 9 mois ki la sut tey mi ngi am 9 mois maanaam dama waxe noonu parce que bi ma amee borom kër macha te li ma fi wax ne Balla Gaye dina daan Yékini boobu aw ma borom kër. Macky sàll mooy daan Ablaye Wade boobu aw ma borom kër Bombardier bi ma gën a neex ak Tapha Tine deret dina tuuru boobu aw ma aw ma borom kër selbe selbe yàlla la selbe selbe yonent bi la selbe selbe Serigne Touba la man maa ñaanoon ci loo xam ne ñëwagul booba xal aw ma juróomi dërëm banaan damay am kër dama ko ñaanoon Serigne Touba ne ko ne maa la ñaanoon sëy bi léegi tasal ma sëy bii bu nekkee maa la ñaan nga may ma ko maa ngi ñaan nga tas sëy bi te boo ko tasee bu ma amaat jëkkër bu ma amaat doom tant que aw ma sama këru bopp ma dund ba am sama këru bopp xëy na moo tax nit ñi ma la laaj ma man ma wax ne man mi maa waxoon lii te xëy na heure bi jot na mais tey jii li nit soxla ci këram sant naa yàlla maa ngi fay courant maa ngi fay ndox ci sama seet bi macha allah ñàkkum lu ma togg. nee nga sànq ñoo xamante ñu la dërëw da xam nga man damaa ñaawut donga ma judduwaale noonu nañu waxante dëgg rek. ndegam ma màgget nii am âge bi def jongo ma ase mag ba ma doonee ku ne mënta ñàkk yéen a ma laaj ma wax ñoom ñu bëgg woote ku ci woote dama naan la man loolu taxumaa jóg man sama jëkkër maa koy tànn man man sama jëkkër maa koy tànn du ma def ko ma gis rek sëy ak yow pourquoi loolu bëgg am fa sëy da ngay bëgg bu amul sax nga ànd ak moom sànq am na loo wax dama waxoon dama waxoon du la tontu dama waxoon du ma la tontu boo sëyee nit ndax alalam am na alal nga sëy moom bu ñàkkee nga bàyyi ko sëy da ngay sëy tuyaat rek tax wërsëg nag mën naa jóge fu ne sa ndey liggéeyal la nga am chance góor mën na la may cent millions sa wërsëg la góor dina ngor a jigéen sax may ku la ëpp cent millions day fekk loolu ñoo xam ne ñàqu mbootaayam la mais man dunduma loolu sëy ak nit parce que dafa am xaalis man taabi sëñ Tuubaa laa kooku ñëwagul loolu ñëwagul bàyyil bàyyil bàyyil bàyyil ba loolu ñëw rek man lu ma paree mun ma ko wax léegi déggoo li ma la munoo am ma wax la wii ou non dama ne la déggoo li ma la wax xam naa ne aay nga de gune nga waaye aay nga fii nga may fekk li nga xam ne may sa ndey déggoo li ma la wax dégguloo li ma la wax loolu moom loolu moom ci yàlla la nekk sumbulu sama doom la mbaay sama doom la déggoo ma eh eh damay ñaan yàlla sumbulu am tuut tànk moo dem ca xew ma taxawu ko bu bëggee sax jox ma jox ma cin yow ma téye ko foofu laa gën a aaye mbaaco la même chose keneen nag keneen la même oh, benn góor ñëwul ko tuwaaye ma de na leer de amul góor am am ma ne ban góor fi ñemee dugg di ma wax dara yow yaa ma ñeme de hmm, attention hmm. lan laa doyee góor fii lan laa doyee góor gu ñëw sama kër lan la ma mën a apporter loo xam ne awuma ko. ñett ma ne ñetti kër laa yor de ñetti appartement laa yor rez-de-chaussée premier ak fii ak ca kaw fooy féexloo kenn joxuma ko maa ko liggéey kon lan lay la lu fi jar yàkkamti di daw di parax paraxi naa toog xaar yàlla ba gis koo xam ne maa koy bëgg bëgg ma ma mën a toog muñ oh kooku man la concerné bu ma neexee jël ko am deux ans concerné wu